organisation des droits de l'homme ñoom ñëpp ils se sont prononcés contre l'amnistie contre la loi d'amnistie léegi dañu war a taxawaat xeexaat pour que ñu abroger cette loi là et c'est moi c'est ce que j'attends de ces autorités pour que véritablement ñu clarifier cette mais da nga jàpp ne sax dañ dañ dañoo bokk ci négociation yi pour que am <laughs> mais ñoom weddi ko <laughs> mais voilà fan lañ ko weddee man gisuma fu ñu ko weddee d'abord moom la ba ils n'ont pas voté déjà ça veut dire que am nañu si yeewu ñu ne amnistie li yow nga gis ay prisonniers yi commencé génn comme ça nga toog tuuti ñoom ñu jël pouvoir bi nga gis décret bi rétablir Pastef dans ses droits mhm. n'est-ce pas Adji Sarr on l'a exilé est-ce loolu yëpp dafa c'est tombé du ciel comme ça non il faut qu'on se dise la vérité la démocratie meurt derrière derrière quand la porte est fermée démocratie jaar nañ ci fenêtre ba dem mhm. transparence moo amul ci négociation yooyu et que bon nanguwuñ ci sax wax léegi yow lan lan lan